ci gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal di ndokkeel jullit yi ci weer wi nga xam ne ci lañu nekk te fu bari ci àdduna bi di ci fàttaliku ganek àdduna ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàttaliku giñ ko ci fàttaliku tak tekkiwut ak fàtte woon ko waaye jàpp ca jataay boo xam ne dañ cay delloo si nit ñi xamal leen lenn ci li ko taxoon a ñëw yàlla yónni woon ko ko ci noonu kenn ku nekk mën a jàngat ba xam diggante daaw ak ren moom ci boppam dox na ci ay jéeg wala doxu ko ca su fekkoonte ne ma ngi ko cay dox mu gën a soññ boppam jëmale kanam jéego ya su fekkee xawoon naa day naagal tuuti mu xam ne foofa du fa fam doon mooy fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegoon tànkam ñi koy waxtaane nag bari na anam guñ koy waxtaanee waaye ñi ciy teggi wax aw askanam ak ay maamam néew na faw ca la ñuy jaar ndax ñun ci suñuy aada liñ xam ci nit bu ñuy waxtaan ci moom dañ naan doomi diw la ak doomi diw loolu nag bu ñu ko tuddee ci jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallama wax fu mu bokk danañ wane ak niteem ne moog nun noo bokk bind di ay nit bi mu ñëwee it ci biir waxtaane googu ñu koy waxtaane danañ ko yéegal ci daraja ju nekk seen kem kàttan te fekk weesu na foofa bu yàgg yàgg waaye fañ toll lañuy waxe waaye nag bokk yi taxagul kenn taxaw ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yàlla nag li ko taxoonu ñëw loolu bokk na ci jële fi ay yàlla yu ñuy lim ku nekk jàpp cim xelam ne moom nangam mooy yàllaam wala nangam mooy yàlla ba noppi nag gëm ko ba mu jaral ko ñu ray ko ca bokk yi nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu andi woon bokk na ci def nit nit xamal nit boppam mu xam ne jaamub yàlla leneen li muy gis lépp di ci teg ba tamit yàllaa ko bind ni moom moom nit nag yàlla am lu mu ko ci liggéeyloo mooy sàmmal ko ko nekk fi nekkal fi yàlla inni jaailun fi l ardi xalifa yaa daawudu inna jaalnaaka xalifatan fi l ard waaye nag bokk yi fekkoon na moom sallallahu alayhi wa sallam ñuy dàkk yàlla di ko dàkk naan foo dem fu dul barab sàngam yàlla nekku fa di fa daje at mu jot di fa yóbbu seen yëf di fa daal wax li def li ñuy tuddee ñun ci lislaam aj makka nga xam ne ñëpp fay jóge ku ne jóge fu ne waaye dem nga nit jullit yi dem makka nag di fa aji makka dakkuñu fa yàlla dañoo am ndigalul jëm fa rek waaye doonut ne jullit yi dañoo jàpp ne foofa rek la yàlla nekk ndax yonent ba mu fi fekkee doxin waaw dafa wax ne ci làmmiñu alquran lillahi almashriqu walmaghribu fa aynama tuwallu fa samma wajhullah inna allaha waasiun alim inna allaha waasiun alim fu ngeen mën a jëm su fekkee ndigalul suñu boroom moo leen fa tax a dem ayca foofu ngeen am ndigal waaye tekkiwul nag fa la yàlla nekk daal yab ca ndax ñun liñ xam ci am natt munuñ cee natt fii la yàlla di tàmbalee ak fii lay yam yàlla na yàlla musal ci boobu pas-pas bokk yi yàlla kenn la jurut kenn juru ko moo fi jëkk te kenn jiituwu ko fi moo fi mujj te dara du ne ginnaawam inna naxnu narisul arda wa man alayha dara ump ko itam bokk yi nag ngir loolu sax ci kaw suuf gëm-gëm boobu pas-pas boobu génn na jaasi mbaram bataay génn na paaka ci mbaram génne gunt tax mbooloo takk ndax daa am ñu ne loolu du fi jibe ñu ne ah kay fi lay jibe kon nag suñ doxee lu ma junni at yu teg lu bari lu ne gàññ ba ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbale jàmbal jàngaleeg léegi jamono soppiku fi soppiku waat fi neex fi naqari fi ba mu yàgg nit ñëw seet ku ko neex ci jaame yàlla yi mu giñ fa ngiñ gën a dëgëre fa ngiñ gën a kawee ne kooka mooy yàlla mi bind doomu aadama yi na ko gaaw tuub te xam ne dana ko layoog moom ëllëg ndax alxuraan mi ngi ñuy wax ne bu ëllëgee yowmal qiyaama yàlla dana wax ne hada yawmu yanfau saadiqina sidquhum loolu seydina isa alayhi salaam la ca yàlla tudd ne su ëllëgee doon wax dëgg rek moo am njariñ ndax moo wax ci alquran ne wa id qaala allahu ya isa bna maryama a anta qulta linnaasi ittaxiduni wa ummiya ilahayni min duni illah qaala subhanak maa yakunu lii an aqula ma laysa li bi xaqin in kuntu xultuhu faqad alimta taalamu ma fi nafsi wala aalam ma fi nafsik innaka anta allaamul guyub doo ko ne waaw yow yaa waxoon gaa yi ne leen yoway yàlla mu ne nettaliwuma ko loolu kay moom li ma wax bari na waaye sama xel musa xalaat di ko wax kenn su fekkee maa ko wax ba ma koy wax yaa nga fa woon sama gannaaw it bañ ko waxee sama gannaaw te fekkewu mu ko it yaa ngi fi woon maa qultu lahum illa ma amartani bi an yabudu llaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim wa anta ala kulli shayin shahid waxuma leen lenn ludul kat la nga ma digaloon ma wax leen ko ne leen kaay leen ñu dem dem gi day ànd ak pas-pas li ñuy fas mooy yàlla kenn la moo bind mooy buur te moo moom ñu bokk ko jaamu maag yéen ba ma fa nekkee di dund nag lu ma mënoon def naa ko waaye nag ba ma fa jógee it taxut nga jógee fa yow yaa nga fa woon di leen xool ndax dara ump la fekk nga lépp in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka anta al azizul hakim soo leen tegee mbugal mu tiis ci wutal yàlla ku muy dendal soo leen ci mbugalee yaa moom sa mbugal yaa moom sa jaam waaye soo leen jéggalee it xam nañ ne yow ab jéggalee kon nga yaay jéggalekat bu mag bi ca la yàlla rek qaala hada yawma yanfaqu saadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min taxtiha al anhaar xaalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu anhu dalika al fawzul azim kon boog ki ne diw mooy yàlla mi bind jaam ni bu ne woon yàlla yam ca yaa gis na ko wax yàlla nangam dina am na waaye yàlla mi bind jaam ni nag kenn la moom moom lay wax ci alxuraan ne nit ñoo xamut rek waaye li nekk ci biir asamaan ak ca kaw asamaan ak biir suuf si lépp ñoom saa bu ñu xëyee ñu ngi tudd yàlla di ko bàkk sabbaxa lillahi ma fi samawati wal ard lu tax mooy lahu mulku samawati wal ard la ca kaw suuf ak la ci la ca kaw asamaan la ci kaw suuf lépp moo ko moom bokk yi ku mu neex nga ne diw yàlla la waaye yàlla mi ñuy wax moom yonent bi dañ ko jàngale yuhyi wa yumiit maanaam ku dund yàllaa ko dundal moo ko jox dund waaye ku fi jóge it li tax mënuñu mënuñu si jàpp kenn buñ xoolee ne kii daa daa daa dee rek naturellement naturellement yàllaa ko rey la naturellement soo déggee ñu di ko wax mooy yàllaa ko rey rek kenn mënalu ko dara. wa huwa ala kulli shay'in qadir yàlla moom lam yalid wa lam yulad bañ ne yonent bi yàlla mi ngay wax góor lam jigéen la mag laam ndaw la yàllaa ko tontul moo ko ne qul huwa allahu ahadun huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad yàlla kenn juru ko te du mas a jur kenn huwa al awalu mooy ki fi jëkk dara jiituwu ko fi huwa al aaxar aaxiru moo fi mujj huwa zaahiru wal baatinu loo séen rek bu gis rek bët tegee rek yàllaa ko feeñal waaye yi nga xamut it amu ca lenn lu yàlla xamut te it mënees naa wax it ne kum ci xamulut doo xam wa huwa bi kulli shay'in alim kum neexit ma ngay diwa yàlla waaye soo ne diwa yàlla bu ab laajkat mënee laaj na la anamo bul ne ko mukk rahmatullahi alayhi de wala radiyallahu anhu ndax yàlla huwa xajun laa yamut bul ne mukkit mooy bàyyi diw wala mooy magi diw wala mooy rakki diw saa boo ko waxee rek yàq nga wax ja te it daa kookee ngay wax bu fekkee mi ngi dund daa war a weddi fa saasa ne du moom bala moo layoog moom na muy layoog Seydina Isa alayhi salaam yàlla woyofalu ko lu mu diisal la waaye yaalamu wallahu yaalamu amalakum amalakum mutaxallabakum ku ku naan diwa yàlla it bul toog fa jataaya mukk mu naan diw ci loo nekkoon gannaaw am na lu ko ump ci waaja ba di ko laaj rek yàlla moom dara ump ko lépp la xam bu ne ko gëñ naa laa gis it yàlla moom kenn rawu ko mi ngi gis lépp yàlla bu ñu ko ne nag kii mooy diw nangam la sant su boobaa ak yàllam day dàqu nekk fa yàlla néew fa kafanem lu la neex mën nga ko waaye ba mu des yàlla moo tax li gën a li gën a wóor mooy saa su nekk ñuy xàmmee ku jàngale pas-pas dëgg te xam ko ak kuy xam-xam lu pas-pas mooy lan ba ku ko neex rek mu woowee ko yàlla junj naa léegi ne bu mu jur kenn bu ko kenn jur waaye buñ ne la mukk moo dëkkoon fii de buñ ne la mukk moo dëkkoon fii ginnaaw moo fa dëkkoon am na jamono yoo xam ne nekku fa woon te jamono yi ngay wax nekkatu fa te yàlla moom mi ngi fépp musu fee ñàkk jóge musu fee jóg te du fi jóg ba mukk ñi fi yàgg gën a gudd fan fi lañ ko fekkoon te dañoo dem bàyyi ko fi ak ak ak yëfam inna nahnu narisul arda wa man alayha wa ilayna yurjaun bu la bëggee layal inna nahnu narisul arda wa man alayha bu la limalee suuf yi bari yu mu am ilayna yurjauna nag yàllaa koy moom moom ca moom lañ jóge woon ca moom lañuy delluwaat suuf sii nga xam ne ci lañuy dund yàlla nee na minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra loolu kenn ñi ma wut a wax ne moo ko ci jàppale woon ba muy bind suuf si kenn mënu laa wax ne yàllaa ko àbb leen entretien bii mu koy entretenir it di taw muy sax léeg-léeg mu bay ko ba mu seen wécc indi naaj wi ak jaas mu upp ko mu wow koŋ bu kenn maa ko ci jàppale ku la neex nag mën nga ko wax waaye ku ko ci waxee xel day daal di bañ xel yi am na fu ñuy yem dégg moom nee nañ wax du jeex waaye waaye dégg am na fu muy yem Iblis li muy sàggan lépp nangu na ne yàlla mooy yàlla ndax qaala rabbi fa anzirni ila yawmi yubaathuun nangu na bu mu mu bu yàlla bu yàlla mi mu doon ak ni moome ba ba ko Firawna ba Firawna waxee ne maa alimtu lakum min ilahin gayri yàlla ji ngeen may wax xawma ci judul man mii moom moo wax loolu xamaluma leen jën yàlla judul moom moom Firawna moo ko wax taxut seytaane wax ko dara da koo gën a jege rek da ko ne boo bëggee boo ci bëggee xam dara rek ginnaaw ñoom bu ñuy ñaan dañuy yëkkati seen loxo jëm ci asamaan yàlla mi ngi ci asamaan yàlla mi ngi wax ci asamaan la nekk mu ne fa awqid li yaa haamaanu ala tiini fajal li sarxan laalli attaliu ila ilahi muusa firawna ne gaayam ya tàmbale ko ci haamaan tabaxale ma tata ju gudd joo xam ne fu waay toll di ko séen bu kawee lu mu gën a kawe xeeb naa ko ndax ma mën a yër moom mii ñuy ñaan di tàllal seen loxo ci kaw wa inni la azunuhu min alkaadibin wastakbara huwa wa junuduhu fi l ardi bi gayri lxaqi wa zannu annahum ilayna la yarjaun waaye fa mu mujj ak moom fa axasnaahu wa junuudahu fa nabasnaahum fil yam waaye ba firawna xeebee loola xeeb baatub ilaah moo tax ma ne kum neex ma ngeen yàlla nangam la ilaahul marx da amoon ilaahu nangam am waaye ba firawna taxawee ne ana rabbukumul aala iblis dafa daw ne ko ah li nga wax ëpp na xaaral ma jóg fi ñu ko waxe man kon bokk bokk yi jamono wurta neex wala nit bëgg lu neex aw nit ba yàgg mu jël ci jaami yàlla yi kenn waat ne mooy yàlla munu koo layale dara amut wenn lay bu ne la mukk mi ngi dund de mi ngi dund moom soo ko déggee kuy soxla lekk ak naan la ak nelaw waaye nag bu mu ca teg mukk rahimahullah wala radiallahu anhu wala rahmatullahi alayha wala rahmatullahi alayh loolu moom su boobaa lam jëloon ci yàlla delloo na ko ndax bu ñu rahmatullahi ala fulaan wala radiallahu ala fulaan xam na ne yàlla moo ko fi indoon moo ko fi jëlewaat te am na lu mu ko yéene ëllëg moo tax pas-pas su tàmbalee woyof ci nit ki lu ko neex wax tawxiid su tàmbalee jóge ci nit lu ko neex wax ku ko neex wax ci moom lu ko neex waaye wërta mën a àgg nag ci diw mooy yàlla loolu ëpp na moo tax sëñ bi bi muy sëñ mag bi bi muy bind matlabul fawzayni ci tàmbali bi mi ngi wax naan wa kittu lil amdaaxi wal itraai azhadu fi taalifi wal iqraai tuuti kon tagg ñu may tagg ak jayyee ñu may jaay dox sama digganteeg bind ak jàngale tuuti kon rek su xamutoon boppam ne jaamub yàlla la danañ ko tagg ba wan ko ne ko yow yaag yàlla yéen a mas a dëkk naka jekk lu wér la yàlla mu si tàggul jaamam waaye nag ci nan buñ ko bëggee natt ci ñu ñu ko xamee ñoon nga xam ne saw sàkket ak ku sàkketam ñoo taqaloo déedéet yàlla nekkul foofu wala su jéem a jaay kenn wala ñu ko jaay wala ñu di ko tàgg ba ne ko yaag yàlla yéen a sës ay appartement wala yéen a bokk benn supermarché bu ngeen di duggee loolu moom kuñ ko wax fekk mi ngi koy dégg daa war a bañ fa saasa bala ko yàlla lay ak moom naa ko man ngay diir mbagg nag léegi a anta qulta lin naasi ittaxizuni wa ummiya ilaahayni min dunillah waaye bu pas-pas tàmbalee yoon njax nit ki lu ko neex wax ba ci jëmmi suñu borom bi subhaanahu wa taala te loolu wax naa léegi ne tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bocc jaasi ba tàyyi ndax baatub laa ilaha illa allah sax fi lim làmboo ci ay melakaan ak pas-pas kon wéetal suñu boroom àq jum am ci jaamam ñi la rikk nañ ko ko jox booy wax pas-pas nag dana am dënn yoo xam ne dañuy rëcc mu metti ci ñoom fatanqal leen waaye nañ moytoo bokk ci aaya bi suñu borom di wax ci aw gaay naan ida dukira allahu waxdahu isma'azzat qulubu allazina la yuminuuna bil axira buñ naan yàlla yàlla yàlla juwoo koŋ nga tàmbalee gis ñiy pat-pati ndax mer dañoo bëgg mu noppi bëgguñu koo dégg loolu nag ku fa nekk gëmul ne alaxira ngi ñëw gëmu ko ndax ku gëm ne àllaaxiraa nga ñëw da ngay déglu kese kese yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla ndax foofu la amee njariñ waaye alquran nee na wa ida dukira alladina min dunihi waaye suñu fa nekkee di wax lu ne loo xam ne yàlla nee na du ca bokk du ca na gàññ ida hum yastabshiruun am ti lu dul rek nga gis ñoom ñépp seen kanam yi leer nañ ñu bég a bég léeg-léeg sax ñu yëkk seen alal jox la ko am ñoo xam dañuy summi seen bëbb sànni la ndax bëgg fekk loola amul njariñ bëgg tam kese kese amul njariñ moo tax nañ tënku ci tawxiid ju dëgër joo xam ne kañu koy wax lum xam lay doon lum mën a layal tawxiid ki nag buñ ci sedd kenn buñ ca bàyyi xel kenn ku dul yàlla rek loolu moo tax mu tudd mooy tax mu tudd tawxiid yàlla nu yàlla dimbali ba saxal ñu ci fi mu bëgg te ëllëg mu may ñu laywu dëgër woo xam ne fii lañ koy tàmbalee mën a layal ci àdduna bu àllaaxiraa mu raw te wërsëgal ñu bañ mën a ngooy ci suñu tawxiid dëgg-dëgg dund ci faatu ci ñu dekkal ñu ci ëllëg yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimiin